loolu moo tax bi bu ma ñëwee caaro yi mm-hmm. bàyyi dafa ñëw foofu rek mm-hmm. Jibril Sàmb mm-hmm. dawal oto bi ci usine ndox mu taxaw li wàcc dox ak tànkam ñëw foofu saabal la oto mënu faa dugg mu ne ma bàyyi ñëw na ñëwal moo tax ma jeex la ndax Jibril ku baax la taalibe la mais géwél la itam li may am du bari waaye may dama ci fu ma ko gisee jox ko dara nekk sama xarit bàyyi ñëwee rek dafa may jël si. est bàyyi ne moo foo nekk man ko de jamono yi maa ngi foñ naan caara yi ndax sëriñ bay nekkoon naa ci moom jóge fa ñëw moom itam mu ne ma ci loo nekk ma ne ko boobu maa ngi Pikine looy def man ah man de damay liggéey ci benn usine usine bi dafa almadi te ah, soixante liggéey ci usine almadi euh, comme lan maanaam comme manœuvre rek ma damay pièce pièce yooyu tax ka yooyu damay am gasoil leen raxas sama loxo yëpp dafa fut weer bu ne danaa am junne ñaari téeméer hmm. six mille hmm. noo cam yow fi nga jaar ak li nga jàng ak kii ngay dem di di ménébre ci ay bay loolu waaye mën a guma ko baal aw ma li ci lan lu ma jàpp te aw jàng rek te boobu yaa ngi njaboot waaw waaw am na soxna mais amaguma njaboot eh, aw jàng doo ci mën a joxe dépense mm-hmm. alxuraan rek sëñ bay daal di wax rek ma toog ba Jibril ñëw ne ma bàyyi ñëw na mu ne nga mu ne nga ñëw ma ñëw ngeen mu ne ma foo ne ma ne ko man de léegi maa ngi caa fu ñu naan caaroy fi wetti usine ndox bi rek ma ne ko looy liggéey ma ne ko tàmbali naa day eh, direction de l'information journal arab boobu ñun ñoo koy bind mu ngi tudd al ahadul jadid al mm-hmm. mm-hmm. gannaaw gi lañ ko wax masi def masira man mm-hmm. na ñun ñoo koy bind suñ directeur Cheikh Touré la beneen doomu suñu mag yi suñu mu ne ma noo def fu nga dëkk nit ñi ma ne deful nen jàkk ji sax dañ ma ko génne mais bu may julli damay xaldu hmm? ñu ne loolu lu tumuraanke la du du bu ma bu ma yàq gune yi dañ maa génne jàkk ji waaye dama la ne ñaan nañ ma ba rek may julli si du du ma ilimaan du ma du ma nekk sax sapp bu njëkk bi deuxième sapp laay nekk suñ sama ma génn mu ne waaw waaw hmm, toogal foofu te déglu ma bul yëngal dara hmm? toogal foofu te déglu ma ma toog koor gi jóg daayira Ansaar Din jógee Pikine eh, dama comme fa laa dëkkoon nan dama leen defire alxuraan waaye jàkk ji bañ ne dama dugg jàkk ji waa daayira bi mbaar ardoise ci weti jàkk ji bañ mbaaree mbaaram ñu toog fa di firaaku bu takkusaan jotee mm. ilimaan ji day ñëw jiite ak ñaar nit ñetti ñu julli mbooloo yëpp toog di ma xaar bu ñu yeggalee faqaraat yi ma bëgg a jàng ba pare mm. ñu julli ñëpp ànd ak ànd ak ñun mu noppi rek kuy ñaan wirda boo ñëwee bind la te jox lan deman ci asan dem gannaaw gi sama jarbaat ñëw fa Moustapha moom li jaasam sax maa ko ko bindal muy ñaan bi la ma ne demal ci Moustapha Ba moom la ma demal ci Assane Dem bàyyi doon bu yëngal dara du may waaw du ma may wér hmm. du bàyyi dama déglu ma rek ah, ñu ber ma génne ma jàkk ja waaye yàlla moom mooy karim ñi dem ba yàgg rek dafa nekkoon ilimaan xëy xëy rek di dee dee bu gaaw way dem Dakar rek dugg ci car rapide bi daanu dara jotu ko waaye mu ne bëre tiit daw traversé télé bi beneen yenu ko la dee képp yi wax ma ko fekk xëy na ma wàcc ñëw toppatoo ko ñu sóob ko nangam nangam maa ngi ci gannaaw rek keneen ku nekkoon ab chauffeur ci usine ndox bi hmm. ñoom ñoo fa njëkk dëkk ñooy chauffeur yi usine ndox bi bee moomoon fi ñu dëkk ab tur boobu maa ngi yore benn de show la mu laa taalee foofu ñëw Kaolack ñëw Kaolack julli si mooy ñëwee bu ñu dencee sëriñ bi ñu ñibbi nekk ci la ma nekkoon rek nekk ci la ma nekkoon rek ñu julli timis rek man bu ñuy sonal rek ma génn ah bi ne ah mboolo mi may leen ma may leen borom dëkk bi ne eh oustaz kaay ma ne ko déet man bokkuma man julli rek ma fi indi waaye ñëwal ñëwal daw jàpp sama ba xëcc may daw ñëw toog eh, tukulóor bi ne man maa fi nekkoon ilimaan wala ma ne bàyyi naa xam naa ne aw ma xam-xam xam naa ne borom xam-xamam fi di julli ci sama gannaaw àttinuma ma loolu bay naa du ma nekk tiil kenn nekku fi ñu ne ah, kon de amatuñu ilimaan Matar Ndiaye mi doon jàngal gune yi di am kàngum alquran gars yi fale nañ ko ndax ñu ne ilimaan la dafa ay tax yuy daw am ay taalibe ji mag kii ilimaan bi amee ay taxe ak ay nangam ak nangam gars yi fale woon nañ ko mu dafay nekk ilimaan borom dëkk bi day jàpp sama ba xëcc na ma ah oustaz yaa fi sës na ma ne ko sës ci lan hmm. ni imaam ma ne ko déedéet man mënuma ilimaan hmm. mënuma seen lu tax hmm. man man nii lay jullee te yéen ngeen loolu koy jullee du nekk ci yàq ji man nii lay jullee damaa xam ne yéen bi noonu laa noonu laan jullee ma di ko roy loolu du fi am bokkuma man kay du leen tuddal doom duma leen julleel néew du leen jiite it ndax dangeen ngeen ne matuma loolu kon ko matuma ko nag man gis nga ko pantalon lay sol damay xëy di liggéey borom dëkk bi ne ma fekk nag samay mbokk fa ay tukkulóoram fa ay fuutanke kenn ki jibeeri mbër mbër mu sippi la. Mm-hmm. ci boll lañ <laughs> ay sañ wax lañ. Eh. mu jóg rek daal di saag saag waa mbooloo yëpp ndey ne doomi nangam yi ñeer yéen boroom xam-xam nekk fi ngeen bàyyi ko ber ko bëgg ko génne jàkk ji muy julli ci gannaaw ndax fu ngeen di amee du ngeen am dara du ngeen ko am xas leen saaga saaga saaga saaga ba sonn bay ñoom sam faalak waa añam yi sekk sekk yooyu ñëpp jóg nag mbooloom tukulóor ñoo gën a bari daal ne yéen ilimaan a ngi fii borom xam-xam ngeen bàyyi ko ndax sot sotloo xëccoo kii ah, du ngeen am ilimaan borom dëkk bi ne ah oustaz ah, yow de gars yi day léegi yow lañ jàpp de ah, man de mënuma ilimaan ñu ne yaa koy nekk de man ne kon nag damay ami charte de ñu ne luy ne nii laay jullee ñu ne waaw ma ne bu ma duggee jàkk ji bu kenn wax bismillah comme may seen ilimaan maa xam waxtu bu may ma jógut bu kenn jóg ñu ne d'accord nañ ci loolu ma ne lépp lu ma def laaj leen lu tax ma def ko ak fan laa ko jàng ñu ne waaw yàggul rek ji julli fa julli suba ma jàng soratu sajda dama dama dama fàtte dama juum mm-hmm. ba ci sujjóot ba rek ma rat sujjóot jóg rek gaa yëpp seen julli yàqu xamuñ li may def. ñu jaxasoo. ñu pare waaw ñu gaa yi waaw yow oustaz li nga def nii suñ julli yàqu ni ñu ne man ko non non man maa juum maa juum parce que comme yéen fi ngeen toll war a mën a jàng foofu. Uh-huh. waaye dootuma ko def dinaa jàng ci gàttee yi ngeen xam rek waaw may jàng fu amul sujjóot loolu mm-hmm. la mm-hmm. noonu laa fa nekk ak ñoom mm-hmm. ma gis ne li bàyyi waxoon ma commencé léegi boo ñëwee ca koñ ba fayda ba dafaa nekk daayira ba dafaa taxaw ñëpp ñu nekkoon ay murit ak ñu nekkoon ay kii ay tijaan lañ ci fay ji tijaan loolu moo ñoo ñoo taxawal sax ziyaare bi ñu may defal at mu nekk tàmbali ko daaw daaw jéeg ren ñu koy waajal le cinq mai bañ ko tàmbali sax damaa bañ ñu ne moom mënut ñàkk ñoo xam ñu ne ma sëñ bi du yow. Mhm. ñun ñooy taalibe yi ñun ñooy def. Mhm. waaw man waaw a mënatuma ci dara. dañuy yéex nañ ko sax sëñ bi yàlla nañ. waaw ah, mënatuma ci dara yàlla na calal ba faw. Ah. yàlla bu ñu taxaw mukk yàlla. bu ñu taxaw mukk yàlla. dama ah, tegu ci alquran bi sunna. barke laa na xeer.